ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñi ngi kon ba tey ci laytaayal gi nga xamante ne moom la ñuy laytaayal njàng bi ñuy jàng al aqidatu tahawiya mu gën a siiwee noonu te e, dëgg-dëgg turam nekk e, bayaanu aqidatu ahli sunnati wal jamaa e, loolu Euh, gisoon nañu ci baat yooyu noonu ba ci ahlu sunnat jamaa ci jotaay bi weesu nag leeraloon nañu bu baax a baax maanaam xeetu euh, ñan ñooy waa ahlu sunnat jamaa kon suñ jotaay bi dañ ciy jeexale maanaam juróom-ñetti xaaj yi nga xam ne moom la al imam Abdul Qahir al Baghdadi rahimahullah euh, leeral ne ñooñu xeet yooyu ñoom ñooy maanaam ci alfarqu bayna al firaq téeram bu am solo boobu nga xam ne da cee leeral xeetu maanaam euh, lan moo tàqale maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy woote woo ci lislaam ci ay xeet moo xam génn nañ ci lislaam donte ñu ngi koy woote woo wala boog ñu ngi ci biir ba tey euh, ñooñu muy leeral nag ci benn xaaj ci maanaam ci juróomeelu bunt bi euh, xaaj maanaam faslu mu njëkk bi dog mu njëkk bi moom ci lay leeral Euh, bunt boo xam ne daf ko tuddee maanaam fasl bi fii bayaani asnaafi firaqi sunnati wal jamaa maanaam ci xeeti euh, xeet yi nga xamante ne ñoom ñooy bokk ci ahlu sunnati wal jamaa euh, maanaam juróom-ñetti xaaj la leen xaaj waaye ñun buñ koy jàng maanaam buñ koy wax dinañ wax maanaam moom li mu wax waaye maanaam dañ ciy dugal sunu kaddu moo xam sunu kaddu bopp la mo xam dañuy toxal ay waxi bopam wala bok dañuy toxal waxu ñeneeni boroomi xam-xam yu gëna leral manam maanaam mbir moomu rahmatullahi al jamia kon mom mu ne ci xat bobu non rahimahullahu taala mu ne i'lamu as'adakum allah anna ahla sunnati wal jamaati thamaniyata asnafin min an mu ne na xam eh, te yàlla na yàlla texel leen lool loolu jumlatun i'tiradiyya mooy mise euh, juxtaposition plutôt mu ne eh, na ngeen xam ne waa ahlu sunnati wal jamaa juróom ñett xeetu la maanaam loolu liñ ci wax mooy ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañu ne ay xeeti am nañ ci bu ñu waxee ahlu sunnati wal jamaa ana ñan lañ ci jublu ñaare ñiy faral di wax ci loolu nag mooy ñi nga xamante ne dañuy yëngatu ci ilmul kalaam mooy mu mutakallimuna yi wala borom xam-xam yi nga xamante ne maanaam buñ koy wax ci buntu boob lañ ciy wax loolu moom moo tax ñaare ñuy faral di wax naan ash'ari yi la ak maturidi yi ñu ci dugal ñu ne euh, asariya yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy suuf yi maanaam buñ xoolee ñeenti xaaj yooyu ñaare moom la ñu faral di wax ci ay teqantal yoo xamante ne léeg-léeg dañ naan rek ash'ari yi wala maturidi yi lek ñu ne. achariya ak maturidiyya ak asariya yi ala kulli xaalin li nga xamante ne moom lañ ci jublu mooy ne maanaam jurul mooy xaaj yooyu yëpp dañoo nekk ci benn xaaj kese comme li nga xamante ne noonu la leere woon ci suñu jotaay bi weesu ak jotaay ba ko walillahi alhamdu wal minna léegi moom fii daf ko xaajale juróom ñetti xaaj yoo xamante ne bu ñu xoolee xaqiqatan benn xaaj kese mu آه، صنف منهم احاطوا علما بابواب التوحيد والنبوه واحكام الوعد والوعيد والثواب والعقاب وشروط الاجتهاد والامامه والزعامه وسلكوا في هذا النوع من العلم طرق الصفاتية من المتكلمين الذين تبرؤوا من التشبيه والتعطيل ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية والنجارية وسائر أهل الأهواء الضالة Euh, mu ne kuréel bu njëkk bi maanaam dafa am kuréel ci ñoom euh, ñoo xamante ne euh, dañoo soobu yoonu boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo yëngatu ci wàllu tawxiid maanaam te ak ci di wax ci yenent yi alayhim salaatu wassalaam maanaam nubuwa ak luy atte yi ci atte yenent yi alayhim salaatu ak atte yi ak tëkku maanaam borom subhaanahu wa di diggee ay xéewal ay ajjana ak yu mel noonu ak di tëkkoo ay mbugal ak safara ak yu mel noonu ak li aju ci wàllug yool ak ak xeetuk maanaam duma maanaam ay punition euh, ak ay mbir yi nga xamante ne day wër-wërloo ci charte yi nga xamante ne ñoom ñooy wax ci ijtihaad maanaam naka la nit bi yeggee ci niveau bi nga xamante ne danay mën di wax ci diine ji E, ci xalaatam ñu koy bàyyi xel ak lii wax tax ñuy wax maanaam muy am e, maanaam le fait que nga mën a nekk imam ci nit ñi maanaam agit imama imaama googu xilaafa googu li kilifteef ci biir l'islam bi nan lañ koy mën a taxawee ak kan moo ko mën a taxaw ñooñu nag ci boobu xeetu xam-xam dañ ci sóobu ci yoon yi nga xamante ne mooy yoonu ñu ñuy tuddee ak mooy ñiy saxal melo yàlla borom subhaanahu wa taala ci mutakallimuuna yi te mooy ñi yëngatu ci ilmul kalaam ñooñu nga xamante ne dañoo set wecc dañoo deñ ci lu ñuy tuddee tashbih mooy di melale yàlla ak mbindeefam yi kon ñoom euh, euh, euh, lépp loo xamante ne ah, comme ni imam al-Laqaani wax wa kullu nafsin awhamat tashbiha aw uh, fawwid aw awwil warum tanziha maanaam uh, bépp texte boo xamante ne uh, dafa ñëw te boo xoolee wax ji li muy indi ci biti wax ji boo koy doog a dégg mën na laa yóbbee ci nga nuróole yàlla ak mbindeefam yi rek mu ne soit maam da nga koy gëndale mooy nga interpréter ko comme jotoon nañ ko gis suñ jotaay bi weesu ci bi ñuy wax ci bët borom bi subhaanahu Eh? maanaam nga gëndale ko wala boog nga joyal maanaa bi yàlla te nga namm ci loolu maanaam fawwidhu aw awwil warum tanziha maanaam maam nga ko joyal yàlla wala boog nga gëndale ko te nga namm ci loolu yëpp setal borom bi subhaanahu wa taala ci lépp loo xam ne nuru na ko ak mindi fi maanaam kon waa ahlu sunna noonu la ñu def kon ñoom dañuy def maanaam dañuy sori tashbih mooy melale borom subhaanahu wa taala ak mindi fi waaye tamit dañuy deñ ci lu ñuy tuddee ta'til mooy Eh, dàq melo borom bi subhaanahu ne melo woowu amul voilà dañuy mucc tamit ci bidaa yi nga xamante ne moom mooy rafida yi maanaam mooy eh, chiite bon yi nga xamante ne dañuy ŋàññe saxaaba yi radiyallahu anhum di dal ci seen kaw di wax lu ñaaw ci ñoom ak xawaari ji nga xamante ne eh, dañuy génn di féttirlu ci kaw njiitu jullit ak di féttéerlu ci kaw julit ñi di eh, xeex ak ñoom ak di leen génne ci lislaam naka noonu jaxmiye yi eh, ñoom jaxmiye yi eh, tamit côté bi ñu juumee mooy ci wàllu taatil biñ doon wax léegi maanaam daq gi ñuy dàq melooy borom bi subhaanahu wa taala léeg sax maanaam dañu dem ba nga xamante ne melo yi daanaka yi lépp ci melooy borom bi subhaanahu wa taala dañ ko dàq ak ñi xam ne ñooy jaar yi te ñoom ñooy murji ay nga xamante ne dañuy euh, dañoo amee yeneen xeet yi maanaam doxalin te moom mooy bañ gi ñuy bañ maanaam jàpp gi ñu jàpp ne bàkkaar wàññiwut nit lu bari maanaam wàññiwut ne dara comme ni nga xamante ne nit ki bu defee tiyaaba maanaam nit ki yéefir bi bu defee lu baax tamit du ko jariñ dara julit bi su defee lu bon du ko wàññi dara euh, ak yu mel noonu. Euh, ak mboolem yi nga xamante ne xeetu euh, bànneex maanaam xeetu bu borom bànneex yu sànku yi lañ nga xam ne seeni bànneex rek la topp ci texte yi du ñu jéem a jël lépp xool ko ba jariñoo maanaam topp ko ba pare jëfandikoo texte yëpp déedéet ñoom dañu am yu ñuy tànn yu ñu am yii la yeneen yi ci des duñ ko faale loolu moom ñoom dañu mucc ci loolu kon maanaam bu ñu xoolee groupe bi. xaqiqatan muy groupe mutakallimuna yi nga xamante ne ñoom la doon wax su suñu jotaay bi weesu ñu waxoon leen eh, te waxoon nañ ni ñoom maanaam imam al-Ash'ari maanaam biñ jaaree ci maam ñoom Seydina Ali karramallahu wajhu ñu Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ñoom eh, Zayd ibn Ali Zaynul Abidin Umar ibn Abdul Aziz ak ñeneen ak ñeneen moom az Eh, Seydina Jaafar ibn Muhammad as-Sadiq eh, ak ñeneen ak ñeneen ñoom imam Abu Hanifa imam Shafi'i mam d'ailleurs ñoom imam Malik ñoom sax imam Abu Hanifa ah, imam Ahmad ci lañ bokk waaye dañ ci ràññeekuwul comme ñaar ñee dañ ci ràññeekoo eh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ku mel ne al imam Abul Abbas ibn Surayj nga xamante ne moom dafa ràññeeku lool ci jamono jooju te d'ailleurs ibn Surayj bi moom mooy ñaareelu nit ki ñu ne maanaam deuxième beneen siècle bi ginnaaw imam Ash-Shafi'i moom moom mooy ki yeesal diine ji euh, ci beneen siècle bi maanaam siècle bu njëkk bi imam euh, Seydina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu deuxième bi imam Ash-Shafi'i ñetteel bi mooy imam Ibn Surayj bi rahimahullah ak ñoom imam euh, Abul al-Ash'ari ak seen taalibi mi Abul Hasan al-Bahili Abu Abdullah ibn Mujahid ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy seen taalibe yi ku ñoom ñoom imam al-Baqillani Baqillani ñoom imam ibn Fawrak imam al-Isfira Isfirayini ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ne Abu Ali al-Thaqafi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ak mboolem imam yi nga xamante ñoom al-Ghazali ñoom al-Juwayni imam al-Haramayni ñoom as-Subki Euh, Ibn Hajar al-Haytami ci seen ginnaaw ak ñooñu ñépp maanaam groupe boobu nga am dañoo ràññeeku trop ci manaam li nga xam ne noonu la ñu défendre euh, ahlu sunna wal jamaa ci eh, ilmul kalaam maanaam ñooñu euh, ñoom ah Fakhruddin ar-Razi ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim ñoom ah moom at-Tahtazani ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim maanaam gis nga groupe yooyu maanaam kon ñoom ñooy benn groupe bu njëkk bi ñooñu la من وصف الثاني منهم أئمة الفقه في فريقي الرأي والحديث من الذين اعتقدوا في أصول الدين مذاهب الصفاتية في الله وفي صفاته الأزلية وتبرأوا من القدر والاعتزال وأثبتوا رؤية الله تعالى بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل وأثبتوا الحشر من القبور مع إثبات السؤال في القبر ومع إثبات الحوض والصراط والشفاعة وغفران الذنوب التي دون الشرك وقالوا بدوام نعيم الجنة على أهلها ودوام عذاب النار على الكفرة وقالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأحسن الثناء على على السلف الصالح من الأمة ورأوا وجوب الجمعة خلف الأئمة الذين تبرؤوا من أهل الأهواء الضالة ورأوا وجوب استنباط أحكام الشريعة من القرآن والسنة ومن إجماع الصحابة ورأوا جواز المسح على الخفين ووقوع الطلاق الثلاثة ورأوا تحريم المتعة متعة ورأوا وجوب طاعة السلطان فيما ليس بمعصية ويدخل في هذه الجماعة أصحاب أصحاب مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وأصحاب أبي ثور وأصحاب أحمد بن حنبل وأهل الظاهر وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب العقلية أصول الصفاتية walam yaxlitu fiqhahu bi cheyin min bidaai ahli lahwai la maanaam e, mu ne ñetteelu xaaj bi ñoom ñooy ay imam yi ci buntu fiq ci mboo xam waa ahlul ra'yi la wala ahlul xadis maanaam ñi nga xamante ne seen settantal moo gën a bëri doole ci seen fiq ni ñuy doxalee seen fiq ak ñi nga xamante ne sukkandiku ci xadis yi moo gën a moo ëpp doole mais alaakulli xaal ñoom ñëpp faw dañuy soxla beneen bi mais day am rek bu ëpp doole moroom mi ci ni ñuy doxale fiqh bi euh, ñooñu nga xamante ne dañoo ci seen pas-pas maanaam dañoo fas li nga xam ne mooy cosaanu diine yi ak ci mazhabu ah mazhabu euh, ci ci ci maanaam gis-gis giñ ci mooy sifaat yi ñi nga xamante ne dañuy nangu melo yàlla yi ak it ne borom bi subhaanahu wa ta'ala meloom yi dañoo jiitu loolu tamit faaw ñu nangu ko te loolu dinañ ci ñëw ne Euh, xaqiqatan buñ xoolee euh, ibnu taymiya ak salafiyé yi foofu bokk na ci li ñu wuuteeg ahlu sunnati wal jamaa mooy ne meloy borom bi subhaanahu wa taala dañoo jiitu jiituwuñ koo xamante ne mbindeef yi amuñu ci ñoom effet amuñ ci ñoom jeexital te loolu bokkut ak li pas-pas bi ibnu taymiya am ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy salafiyé yi te loolu daañ ko gis incha allahu taala te loolu euh, beneen point la bu doy waar dégg nga mu nekk waa ahlu sunna ñoom dañuy deñ ci lu ñuy tuddee alqadar maanaam maanaam bañ dogal loolu lay tekki wala i'tizal ak yor mazhab mu'tazila yi te yu bëri bëri ci yi mu nar a tudd nag daanaka lépp dafa nekk loo xamante ne mu'tazila yi nanguwuñ ko mooy lan mooy ñoom dañuy saxal gis yàlla ak suñu bët yi maanaam bu ñu àllaaxira yowmal xiyaam kii àjjana daañ gis yàlla ak suñu bët yi ci lo xamantene du and ak tashbih du and ak tatil manam du and ak melale yalla mbindeef mu mbindeefam yi du and ak dak ko dak manam ne gis gi amna wala dak melo yalla yi ñom dañuy saxal ne pang gi dina amé ci bammel yi lañuy ñuy sahal gini ak saxal gi ñi saxal ne dinañu laaj nit ñi ci biir sahal yi and ak saxal gi ñi saxal ne mbalka bi yenent ya, bi di wax sallallahu alayhi wasallam ci aljana ci ci ci ak sirat ak rammu gi ñuy wax ak jéggale gi yàlla jéggale bàkkaar bi bépp bàkkaar bu bokkut ak bokkaale loolu lu am la maanaam yii ay mbir la yoo xamante ne mu'tazila yi ñaara dañ koy bañ ñoom dañuy wax ne àjjana xéewal ya fa nekk dañuy sax ci seeni ñoñ ak mbugalum safara day sax tamit ci kaw yéeféer yi euh, lii tamit beneen wax la boo xam ne ku mel ne Ibnu Qayyim am daf ci wuute gu ahlu sunna te loolu dinañ ko leeral tamit incha allah ñoom dañuy wax ne Seydina Aboubacar ak Seydina Omar ak Seydina Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu anhum ñoom ñooy njiitu jullit ñi ci seen jamono kenn ku ci nekk bi nga yore xel xilaafa gi te loolu tamit dëgg la wuute ko siit yi yu bon yi saay-saay yu doy waar yooyu euh, naka noonu dañuy rafetal ak tagg ci mboole maanaam mag ñu baax ñi ñu jiitu te mooy ñetti génération yu njëkk yi l'islam nag bu ñu waxee mag ñu baax ñi ñooñu lañ ci jublu maanaam yeneen yi lañ ci jublu ak ñetti jamono yooyu nga xamante ne bu ñu wax ñaare salafu saalih la maanaam mag ñu baax ñi faw maam sax daa iman maanaam ñetti génération yooyu la ñuy waxal euh, ndax ñeneen ñëpp ci seen ginnaaw maanaam ci bokkatuñ ci mag ñi maanaam ci ñu mujj ñi lañ bokk maanaam kon ñooñu dañuy dañoo war a rafetal ak tagg ci ñoom maanaam mag ñu baax ñoo ñee maanaam waa ahlu sunna ñoom loolu lañ na ànd te dañuy gis ne euh, julli ajjuma ci ginnaaw imaam yi nga xamante ne dañoo deñ ci nitu bidaa yi maam dafa war maanaam booy julli julli ajjuma ci ginnaaw imaam boo xam ne waa ahlu sunna la maanaam mu amoo lay ci naan bokkuñu tariqa wala bokkuñu mazhab wala yu mel noonu te ñoom dañuy gis ne dañoo waral di génnee atte yi sharia ci alquran ak sunna ak ak ijmaaw saxaaba yi radiyallahu anhu maanaam atte yi diine yi faaw ci loolu lañ koy génnee wi ak yi nga xamante ne borom xam dinañ ci nangu waaye yii moom ne war nañ ni bu ñuy génne atte ñu jëkk ko génne ci yi lii moom mooy mooy mazhab ahlu sunna te dañuy gis tamit ne xuf yi mooy xeeti kawas su der la Euh, ci wuute yi borom xam-xam yu wuute ndax kawas yeneen yi rek dana doy waa wala déet ak yeneen xeetu daal yeeg yu mel noonu waaye ala kulli xaal jëmmi masa ci xuf moom loolu moom ñoom dañ koy gis dañ ciy ànd ndax siit yi masalan nanguwuñ ko ak it ne fase ñetti woon bu amee mooy day dog te dañuy gis ne euh, maanaam ziwaajul motaa maanaam mooy mariage temporaire loolu dafa xaram ñoom dañ ko gis te dañuy gis ne tamit kilifa maanaam mooy autorité publique comme président wala ñu mel noonu maanaam dañ leen a war a topp ci loo xamante ne mooy yàlla àndu ca lépp loo xam ne mooy yàlla nekku ca dañ leen war ci dañ leen ci war a topp euh, naka noonu mu ne ci biir ñii ñu tudd nag te mooy borom xam fiq yi euh, ñi daan ànd ak imaamu Malik maanaam mooy talibi imam Malik moy fuqaha maliki ak Shafi'i manam moy talibi imam Shafi'i talibi imam al-Awza'i asma Sufyan ibn Sa'id as-Sawri ak ibnu Abi Layla Abdurrahman ibn Abi Layla ak imam Abu Thawr ak imam Ahmad ibn Hanbal ak wa ahlu zahir moy zahiri ak mbolam faqihi borom xam-xam fiqh yëpp nga xamantene ne ñoom ci buntu yi nga xamantene buntu manam ci ni lañu fas li lañu fas ci seen xel maanaam te moom mooy lii nga xamante ne moom la wa ahlu sunnati wal jamaa jàpp maanaam ñoom loolu lañ jàpp te jaxase wuñ ci seen fiqh bi dara ci bidaa yi nga xamante ne maanaam euh, ahlul ahwaay wa la ñoo ko sos mooy boroom bànneex yi maanaam nitu bidaa yi nga ne dañoo sànku ñoom ñoo ko sos maanaam ñoom ñi ci raxut dara ñooñu ñooy ñoom beneen kuréel la ci waa ahlu sunnati wal jamaa léegi ci biir loolu nañu xool li imam manam ñu duggal fi suñu wax li imam ibnu asakir rahimahullah wax ci tabyin kasibul muftari mu ne wa aktharul ulama fi jami' al aqtar alayhi yani madhhab al ash'ari wa ammat al amsar fi sa'ir al a'sar yad'una ilayhi mu ne li ëpp ci borom xam-xam yi ci mboolem gox yi manam ci liñu bok moy mazhab ash'ari imam al ash'ari lañ bok te njiitu mboolem dëkk yi ci mboolem gox jamono yi dañuy wootee jëmee maanaam ñu am pas-pasu maanaam imam ashari mu daal di am ci biir wax jooju mu ne wa hal min al min al wal maalikiyyati wal wa shaafi'iyyati illaa muwaafiqun lahu aw muntasibun ilayhi aw raadin bi xamiidi sa'yihi fi diinillahi aw musnin bi kasratil ilmi alayhi mu ne euh, ndax am na keneen ci fuqaha yi ku bokkut lu dul ne ci fuqaha yi maanaam te bokk ci xanafi yi wala maliki wala shafi lu dul ne dafa dëppoo ak euh, ak ak ak ak ak maanaam imam wala boog mu askanoo jëmee ci moom wala boog mu gërëm ko lool di ko sant di sant li nga xam ne moom mooy coonoom ci diine yàlla ji wala boog mu bëri lool lu mu koy tagg ci xam-xam bu bëri amul kenn maanaam li mu lay bëgg a wax mooy lii amul amul fenn kenn ci borom xam-xam fiq yëpp koo xamante ne dafa wuuteeg moom ah, Abul Hasan al-Ash'ari maanaam kon lool mooy wane ne maanaam moom mooy imam bi moo tax euh, te euh, ku mel ni al imam as-Sirayini rahimahullah ci at-Tabthir fi diin nee na ulumul fiqh wa yaxtassu bit-tabaxxur fiihi ashaabul hadiis wa ashaabur ra'y maanaam xam-xamu fiqh yi ñi nga xamante ne ñoom ñoo jagoo ci géeju ci mooy ñi nga xam ne ñooy waa ashaabul hadiis ak ashaabur ra'y te moom mooy fuqaha yi nga xam ne ñooy Maaliki Shaafi'i ak Hanaabila ak ñu mel ni ñoom ak ak Hanafi yi ak ñu melni ni ñoom te ñi ñëpp ci wa ahlus sunna lañ bok euh imam euh as-subki ibnu subki plutôt rahimahullahu taala ci tabaqat ash-shafi'i mu ne wa qad dhakara shaykh al-islam az-zuddin ibn abd as salam anna aqidatuhu manam yani al-ash'ari ijtama alayha ash-shafi'iyyah wal malikiyyah wal hanafiyyah wa fudala al hanabilah ووافقه على ذلك من أهل عصره شيخ المالكية في زمانه أبو عمرو بن الحاجب وشيخ الحنفية جمال الدين الحصيري من ني شيخ عزب الدين بن عبد السلام رحمه الله وانا إمام بماغ بوبو رحمه الله موم نينا بس بسو إمام الأشعريري mboolem fuqaha Shafi'i ak Maliki ak Hanafi ak borom ngëneel yi ci Hanabila yi parce que en fait waa euh, maanaam borom xam fiqh yi maanaam ñenn ci Hanabila yi ñoom ñoo amee problème ci wàllu tajsim ak ta ak ak tashbih maanaam ñenn ci Hanabila yi la rahmatullah alayhi moo tax imam Hafiz Ibn al-Jawzi rahimahullah bind benn téere bu mu tuddoon daf'u shibahu tashbih maanaam jañ li nga xam ne moom mooy tax ba li ba tax ñenn ñi di dugg ci tashbih du melale yàlla ak mbindeefu ci biir xanaa bi lay mu ci ŋàññ lool ñi nga xamante ne ay ñoom ak xaafis abu ya'la wala ñeneen ak ñeneen ñi mel ni ñoom nga xamante ne seen pas-pas dafa wuute lool ah ak pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ba nga xamante ne dañuy dugg ci bidaa maanaam di sax du melale borom bi subhaanahu ak mbindeef yi ku mel ne Eh, ad-Daarimi bokkut ak borom eh, sunan bi nag eh, rahimahullah voilà maanaam ñooñu nga xamante ne maam donte ay boroomi xam-xam lañ ci xadis lu surtout nekk ay xanaabila maanaam yu mel mais suuf que dañoo dugg ci maanaam ci bidaa ci buntu boobu noonu imam Ibnul Jawzi nag rahimahullah bind téere boobu di wax ne yéen yàq ngeen suñu mazhabu imam bi ba nga xamante ne fi mu tollu ñu bëri bëri bu ñu waxee xambal yi rek dañuy daw sax bokk ci mazhab bi ngir dañuy bañ ñu jaawale leen ak genre nit ñooñu nga xamante ne ñoom ñooy dugg ci xeetu bidaa maanaam te yooyu euh, loolu moom moo tax mu leeral fii buntu bi moo tax tamit sànq imam ibnu asakir kiñ biñ tuddoon rahimahullah maanaam bi muy tudd ci fuqaha yi nga seetlu ne tuddaalewul xanaa yi rahmatullah alayhim waaye xanaa yi maanaam ñoom ñaar maanaam comme niñ ko gisee euh, li ci ëpp fuuf ñoom ay maanaam nitu ahlu sunna lañ maanaam ay asaira lañ euh, wala boog ñu nekk ay asariya ay asariya waaye am na ci ñenn nag ci ñoom ñoo xamante ne euh, comme niñ ko waxee léegi ñoom comme ay ibnu taymiya comme ibnu qayyim comme abu ya'la daarimi ñooñu noonu nga xamante ne dañoo yor pas-pasu nitu bidaa yi yàlla nañu yàlla Euh, kon euh, maanaam euh, imam Ibn Subki rahimahullah ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñu Maliki yi ci jamonoom nee na moom an maanaam dafa ànd ci lii nga xamante ne moom la al imam Izzuddin ibn Abdussalam wax rahimahullah parce que al imam Izzuddin ibn Abdussalam moom Shafi'i la rahimahullah di bu màgg màgg màgg màgg màgg ci diin ci diine Euh, moom euh, mu ne te mooy Abu Amr ibn al-Hajib imam ibn al-Hajib noonu ki nga xam ne mooy sëriñu Hanafi tamit ci jamono ji jooju mooy Jamaluddin as-Sayri rahimahullah moom it loolu la ànd maanaam mook maanaam li nga xamante ne moom la wax euh, loolu loolu la loolu la ànd léegi mu teg ci ne manam al imaam Abdul Qaahir al-Baghdaadi rahimahullah muy muy wax ñetteelu kurel bi muna ne wa salis minhum hum alladhina ahatu ilman bi turuq al akhbar wa sunan al mathura an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mayyazu bayna as-sahiih wa saqim minha wa arafu asbab al-jarh wa at-ta'diil wa lam yakhliṭu ilmahum bi dhalika bi shay'in min bidaa'i ahli al ahwa ad-daalla muna ne kurel gi mooy ñi nga xamantene dañoo pek xam-xam yi ci yoonu yi nga xam ne ñoom lañu xabaar yi di dikki ak sunna yi nga xam ne dañ ko toxal mu jóge ci jële ci ñu jële ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa yooyu muy xadis borom xamu xadis te ñooñu ñooñu ñoo ràññee ñoom ñoo settee diggante li wir ak li nga xam ne wirul ci xadis ñoom xam nañu lan moom mooy tax ñu mën a jam nit ne kii moom mënuñu nangu ay xadisam ak lan moo tax ñu mën a jàpp ne kooku ku maandu la mu ne te ñooñu noonu nga xam ne ñoom ñoo tax ba tey ci seen barke la xadiis yenente bi sallallahu alayhi wasallam yegsee ci ñun tey ñooñu de jaxase seen xam ci dara dara dara loo xamante ne ci ay bidaa bu ñuy xam ne ñoom ñooy boroom eh, caaxaankat yi euh, loolu nag buñ ci lim dañ ciy sawar maanaam ndax euh, maanaam ahlul hadis maanaam léeg la nga dégg ci salafiye yi ñoom ñuy wax naan waaye ahlul hadis ñu waaw waaw waa ahlu sunna ñu ñun xadis sunna maanaam fonk ko lool alhamdulilah lu bi lu baax la maanaam fonk biñ fonk xadis yenente bi sallallahu alayhi wasallam dëgg dëgg lu baax la tey eh, lu ñuy rafetlu la waaye nag bu ñu juumee ci approche biñ ci amit nañ ko nangu léegi nañ xool ci misaal kese maanaam ñan ñoo yor ñoom ñooy borom ñooy boroom xam yu mag yi ci jamono jule eh, bu fekkente ne man motax man na deg dégg imam kii Cheikh Abul Ashbal azhari zuhairi kenn ci taalibi albani yi la bok euh muy def tarjuma ci imam al-Bukhari rahimahullah ci bir laaj yiñ ko laajoon nak moy dañ ko hal imam al Bukhari rahimahullah ash'ari manam ndax imam al Bukhari mom ci bopum ash'ari la lutax xam nga lutax ñu laaj laaj boobu parce que imam al-Bukhari ci bir Euh, ci biir saxiixam dafa bëri ay tawil yu mu doon yu muy def yoo xamante ne loolu noonu ñoom salafiyey dañ ne bidaa la te ashari ñoo koy def xataa ba albani nee na am na ci ay wax yoo xamante ne loolu xamuñu maanaam maanaam naka la ko bi imam Buxaari mënta wax loolu mais bu boobaa nanu wax kan moo ko def ci saxiix saxiix bi kay kenn kenn kenn kenn falsifié wu ko waaye moom nee na non non non Buxaari mënta jàpp loolu ah déet bu dee Buxaari mënu koo jàpp rahimahullah mais wax leen ñu kon fan la jóge au moment où euh, mbir yi dañ koo segg téye ko maam ba nga xamante ne falsification amu ci maanaam li ngeen bëgg a li ngeen waroon a xam mooy seen ma sa baaxul waaye yàlla nañ yàlla sàmm maanaam nit ki bu ut bu bu dee dafa dafa gis benn affaire ba pare sëgg te du nangu diglu leneen du nangu gis du nangu confronter ay idéem loolu lay indi ñaare euh, gis nga. waajooju maanaam euh, abul ashbal boobu bi ma ko déggee maanaam bi ñu ko laajee loolu dafa ne subhaanallah est-ce que xam ngeen ni yow laaj bii nga laaj benn laaj rek moo ci desoon mooy nga ni ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam ashari loolu rek ci desoon maanaam imam Bukhari ngay laaj ndax ashari la maanaam laaj boobu rek ci desoon xaqiqatan laaj boobu nag moom mooy mbir mi maanaam yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, moo tax borom xam bu dañuy wax ne. masala bi na hal nabi sallallahu alayhi wa sallam ashari yi la aqida ndax yonent bi aqida maanaam ashari la ci aqida loolu xëy na laajun wi jaaduwul ni yonent bi sallallahu moom mooy référentiel bu mag sauf que euh, ñoom dañ ne loolu buñ koy wax dañ koy waxee rek ne comme tey buñ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naafi'ul qira'a maanaam yonent bi wa sallam njàngina alquraan mooy bu naafi' maanaam aqaalu ndax loolu la ëppoon li mu daan jàng moo tax ñu naan naafi'ul qiraa loolu la ëppoon li mu daan jànge alquran donte daan na jàng yeneen ay yeneen façon jàngin it te d'ailleurs yeneen façon yëpp moo ko jàngale jàngal ko saxaaba yi radiyallahu anhum comme li nga xam ne noonu la leere mais tey bu ñu xoolee nañ jël exemple al imam al hafiz abul hasan ad-Daaraqutni rahimahullah nga xam ne mooy imaamu jamonoom nekk ci gën a màgg ci noqaat yi ci nga xam ne ñoo gën a luññutu xadiis ci jamonoom ashari la te lolu al imam al asakir innako ci ko kadhib al muhtari al imam abu abu nuaym al asbuhani imam bu mag bob borom hilyatul awliya dalailu nubuwa et cetera koku tamit ci ñaarelu tabaka generation ci ñi top imam al ashari ci la bok manam mom moy generation imam al baqlani ñom imam abu ishaq al sirayni ak al hakim ak ibn fawrak ñom ñoom rahmalahu rahmallahu Euh, imam bi nga xam ne moo ñu solool Sahih al-Bukhari moom Abu Zar al-Harawi itam rahimahullahu taala euh, imam al-Hafiz Ibn Asakir boole na ko ci ñetteelu génération yi nga xam ne dañoo jëlee ci sëriñu ci taalibey taalibey euh, imam Ashari Abu Tahir as-Salafi moom tamit ci juróomeelu génération yi la bokk rahimahullah mooy al imam as-Salafi rahimahullah Euh, moom it lan la ashari la imaam bu mag bu abu abdullah alxaakim an-naysaburi di imaamu waa jamono borom mustadrak ala saxiixayni euh, ashari la maanaam kooku moom jarul ñuy wax ay mbiram al imaam alxaafiz Hibbaan al borom saxiix bi naan ibnu Hibbaan solo na ko kooku tamit ashari la moom moo bind tamit kitaabu siqaat ak yeneen ak yeneen ak yeneen. Euh, naka noonu al imaam ibnu Xuzayma Aboubacar ibnu Xuzayma mu ñu naan ko imaamul a'imma moom lañ ko tuddee imaamu imaam yi kooku tam ashari la alxaafiz Abu Saad ibnu Sab'aani rahimahullahu taala nga xam te ne moom moo bind kitaabul ansaab moom it ci ashaira yi la bokk euh, alxaafiz Aboubacar al Bayhaqi rahimahullah muy borom Dalaa'ilun Nubuwwa borom sunan ñu nan imam al bayhaqi solo na hadith bi koku tamit ashari la al imam al hafiz ibn asakir rahimahullah borom kitab tarikh madinat dimashq ak ñeneen yenen tiri mom mo bind tabyinu kasibul muftari koku tamit lan la ashari la imam al hafiz al khatib al baghdadi imam bu mag boobu ngi dégg rahimahullahu taala momit Euh, imam ibnu asakir tudd na ko ci euh, ñi nga xam ne ñoo njëkk ci ñeenteelu tabaqa bi ci euh, ñooñu maanaam ci ash'ari yi imam abu amr ibnu salah rahimahullahu taala moom it maanaam borom muqaddimatu ibnu salah nga xam ne xadis maanaam xam-xamu xadis mustalax bi bobu moy mooy way bi nga xamantene ci la hafizul iraqi tos bindé alfiyam bi te ci alfiya bobu mom la imam asuyuti yi perfectionné ñom ñi ñetti ma tuddu ñi ñëpp ay ashari lañ ay ashar lañ imam al-hafiz muhiddin yahya ibn sharaf an-nawawi imam bu mag bobu imam an-nawawi borom sah shara sahih muslim bi borom riyad saalihiina ashari la al imam ah, salahuddin al imam bu màgg boobu rahimahullah nga xamante ne ginnaawam ku mel ni moom ci xadis amul moom it lan la ku mel ni moom ku ko dend ci xam-xamu xadis amu ci mooy kooku it ashari la hmm? al ibn abi jamrat al andalusi mooy musnidu waa maghrib maanaam ahlul maghrib momit mom maanaam mooy borom bahjatun nufus hein euh bi nga xamantene mom ci la sarawe premier hadith Sahih Bukhari kooku Ash'ari la imam al-Hafiz al-Kirmani tamit rahimahullah borom sara Sahih Bukhari bu siw bobu tamit Ash'ari la imam al-Hafiz al-Munziri ben bi nga xamantene mom mo bind at tarhib wa tarhib tire bu am solo bobu hein ak yeneen ak yeneen def muxtasar sahih maam muslim bi ak yeneen kooku ashari la imam al abbi rahimahullah taala ashari la euh imam as al qurtubi abul abbas borom mufhim ashari la imam al mazini euh euh mom tamit borom ikmal borom al mu'allim bok ashari la imam al-Qaadi Iyaad borom Ikmaalul Mu'allim Ash'ari la hmm? al-Haafiz Ibn Hajar al-Asqalaani est-ce xam ngeen kooku imam bu mag no kenn mënu ko réeré waa ji im pont bu mag bi moom laa tuddee pont bi mooy ki nga xamante ne mooy pont wu diggante ñu njëkk ñu mujj ñi imam bu màgg boobu rahimahullah kenn melul ni moom ci lu ko jiitoo ci lu mujj rahimahullahu taala nga xamante ne borom bi dakaa tàggat ngir mu liggéeyal xadis loo xamante ne ba jonn yàlla tey fii ba adduna bi di tukki xam-xamam faw ñëpp dañ koo soxla ashari la al imam abu yusuf al mizzi imam bu màgg boobu ashari la imam as-saxaawi ashari la imam alxafis as-suyuti al qastalaani al manawi ak ñeneen ak ñeneen maanaam dafa am ñoo maanaam ken mënu leena lim ken mënu leena lim al imam abul walid al baaji al imam al ibn al harbi al maliki ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala al jami ñu ñëpp ashari lañ mu ne wasnfu sinfu rabiu minhum legi mu indi wasnfu sinfu rabiu minhum من قوم أحاطوا علما بأكثر أبواب الأدب والنحو والتصريف وجروا على سمت أئمة اللغة كالخليل وأبي عمرو بن العلاء وسيبويه والفراء والأحفش والأصمعي والمازني وأبو عبيد وسائر أئمة النحو من الكوفيين والبصريين الذين لم يخلطوا علمهم بذلك بشيء من بدع القدرية أو الرافضة أو الخوارج ومن مال منهم إلى شيء من الأهواء wa ma wa man maala minhum ila shay'in min al ahwaa'i ad-daallati lam yakun min ahli sunna wala kaana qawlu hujjatin fi al-lughati wan nahwi dégg nga mu ne juróom ñeenteelu xaaj bi ñooy ñi nga xam te ne dañoo feesal adduna bi ci buntu adab ak naxwu tasrif maanaam lépp loo xam ne day aju ci wàllu làkk arab ak la tax xam-xam ba dox màgg la tax ba xam-xam ba yëkkatiku ñooñu ñëpp ay lan lañ ñoom ñëpp ay ay ay ashari amul kenn ci ñoom ku ci dul ashari koo xamante ne euh, du ci euh, ashariyul euh, mazhab te ñooñu noonu imam maanaam moom tudd na leen tudd na ñenn ñi ci ñoom te mooy ñi nga xamante ne muy comme Khalil Abu Amr ibn Ala Sibawayhi al-Farra al-Asma'i al-Akhfash al-Mazini Abu Ubayd ak ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñëpp waa ahlu sunna lañ mu ne ñi nga xamante ne dañoo bokk ci mboolem ñi nga xamante ne waa kuufi yu lañ ak basari yu ndax école naxu maanaam ñaar la kuufi yu ak euh, basari mu ne ci waa ahlu sunna lañ bokk wal ba wal jamaa te ñooñu jaxasoo jaxasewuñ seen xam-xam jaxasewuñ ko raxuñu ci dara ci bidaay qadari yi ak rafida yi ak xawaarij yi te képp koo xamante ne ci waa xam-xamu luga bi da ngaa commencé dugal ay caaxaan ay bidaa ci say ci mbir rek da gis ne yow ñoom dootuñu bàyyeeti eh, sa wax sa xel maanaam faw da ngay bokk ci waa ahlu sunna ñu bàyyi xel ci sa wax maanaam ndax ñu màgg ñooñu nanguwuñu kuy dugal ci ay caaxaan ci li nga xamante ne mooy lakk arab bii nga xamante ne ci la alquran wàccee ñoom duñ ci nangu ku ciy dugal ay caaxaan moo tax ñoom ñëpp waa ahlu sunnati wal jamaa lañ te <laughs> loolu nag leer na gis nga ñii mu tudd hmm, leer na moom ñii mu tudd mooy ñi nga xamante ne ñoom ñu ñoom ñu ñu njëkk ñi sinon boo xoolee al-Hafiz Ibn Hmm? borom lisaanul arab hmm? ko xoole Murtada Az-Zabidi borom taajul arus hmm? eh, ak ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne eh, ci ci ci ci ci buntu boobu lañ dugg ñooñu ñëpp eh, waa ahlu sunnati wal wal wal jamaa lañ waaw comme al imam maanaam ibnu Malik Muhammad ibnu Malik benn bi ngay dégg borom alfiya bi alfiyat ibnu Malik kooku tamit ci ashaira yi la bokk ibnu aqil mi nga xam ne moo ko shara euh, ci ñoom la bokk ibnu hisham al misri noonu moo it ci ñoom la bokk ak ñoom ñëpp waa ahlu sunnati wal jamaa la ashari lañ wala maturidiya maam dañuy wax ñii diw ashari la maanaam liñ ci namm mooy ashari wala maturidi rek loolu lañ ci namm voilà al imam ibnul anbari ak ay ibnu sayyidu ñun ñëpp hmm? ay ay ay ay ay ashari lañ al majd al fayruz abadi moom mi nga xam ne moom moo bind qaamus bi dictionnaire arab bu mag bi al qamus al muhit koku tamit ashari la hmm waaw kon waay ku desati waay moom mu ne mu tek ci ne mu ne wasful khamis minhum hum alladhina ahatu ilman bi wujuh qira'at al qur'an wa bi wujuh tafsir ayat al qur'an wa ta'wilha ala wifqi madhahabi ahli sunnati wal jama'ah duna tawi duna tawilaati ahlil bida'i duna tawilaati ahlil ahwa dalla eh, maanaam te loolu jotoon na cee wax maanaam ci suñ jotaay bi weesu tamit eh, jotoon nañ ko leeral maanaam ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xamu eh, tafsir yi ñun ñëpp ay ashari lañ maanaam boroom xam-xamu tafsir tafsiru alquran ñu ñëpp ay lan lañ ay ashari lañ eh, te tuddoon nañ ci ku mel ni imam at-Tabari maanaam maanaam mazhab bi nga xamante ne moom la yor maanaam pas-pas bi nga xamante ne moom lay doxe mooy pas-pasu ashari yi voilà ku mel ni imam ku mel ni imam Atiya ku mel ni imam al-Qurtubi ku mel ni eh, imam al ak eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy imam euh, al-Alusi bi nga xamante ne moom mooy boroom euh, Ruhul Maani ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, imam Ibnul Jawzi boroom Zadul Masir ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo bind téere yi ku ku mel ni maanaam maanaam ñu bari maanaam presque presque ñëpp rek maanaam daanaka daanaka daanaka waxal waxal daanaka ñëpp rek nga xamantene ne ñoom ñoom ñoo doon yëngutu ci xam-xamu euh tafsir ku mel al imam Abul Hayyan al Andalusi borom hmm al bahr al Muhit ku melni imam Fakhruddin ar-Razi borom tafsir yu bari manam maanaam Mafatihul Ghaib manam téere manam maanaam tafsirul kabir bobu ku melni al imam al Hafiz al Baghawi mom tafsiram boobu. ak ku mel ne Abul Lays as-Samarqandi rahimahullahu ta'ala borom maanaam ci tafsir Bahrul Ulum boobu mu bind ak yeneeni tiiri nga xamante ne moom dañ ko doon dàqantale sax Imamul Huda bind na tamit beneen tiiri Tanbihul Ghafilin wa Bustanul Arifin ku mel ne al imam al Wahidi rahimahullah an-Naysaburi rahimahullah moom tamit ashari la hmm? Euh, borom téere asbaabu nuzul euh, rahimahullahu taala ah ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne ay borom xam-xamu tafsir lañ moom al ibnu ibnu al tamit borom xam-xamu tafsir bu mag boobu maanaam euh, tamit moom ci ci borom ah, al ah, ahkaamul qur'an ak ñeneen ak ñeneen al hafiz ibnu kathir tamit dama koo fàtte Hmm? borom tafsirul azim bu mag ah, ah, boobu noonu ah, tafsirul qur'anul azim moom moo bind al bidayatu wan nihayatam ak yeneeni téere moom yëpp dafa leer moom sax daf ko wax ci anam gu leer ci ne maanaam moom ashari la comme li nga xam ne noonu la nekkee loo xam te ne lu leer a leer a leer la ak ñeneen ak ñeneen ñeneen al imam ibnu atiya al andalusi ñoom ñëpp hmm? waa ahlu sunna lañ rahmatullah alayhim ñi nga xamantene tamit ñom ñoy ñu mujj ñu sama imam Saïd Hawa rahmatullah taala ak imam ash-sha'a ku mel ni Sha'rawi men rahmatullah taala at Tahir ibn Ashur ñom ñep ay ay ashari lañ ak ash Cheikh Wahbat az zuhaydi rahmatullah nga xamne mom mo nekkon faqihul asr borom xam fiqhu jamono ji ku mak koku génn na àdduna ñaari at ci ginnaaw rahimahullahu taala kooku tamit ashari la kon ñooñu ñooñu ñooy juróomeelu groupe bi mu ne wasan fa sadis minhum juróom benneelu xaaj wi mu ne ñoom ñooy mu ne az-zuhaadu suufiyat alladhina absaru fa aqsaru waxtabaru fa atabaru waradu bil maqduri wa qana'u bil maysuri وعلموا أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك مسؤول عن الخير والشر ومحاسب على مثاقل الذر فأعدوا خير الإعداد ليوم المعاد وجرى كلامهم في طريقي العبارة والإشارة على صمت أهل الحديث دون من يشتري له الحديث لا يعملون الخير رياء ولا يتركونه حياء دينهم التوحيد ونفي التشبيه ومذهبهم التفويض إلى الله تعالى والتوكل عليه والتسليم لأمره والقناعة والقناعة بما رزقه والإعراض عن الاعتراض عليه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم جروم بين الوخات بي بم لين تودي دا لينا تاغ تاغ وي يمه غيس نغي ني مو جوتو تودو ييب ني مو واخا نيوم واي بي مو سي صوفيه يي دا لينا تاغ تاغ وو كاوي ñoom am lu ñu bàyyi mooy suuf yee yi muy tudd de wuute nañu ak lool ak jamono ji ñu ñuy wax suufiyee yi ak ñoo wuute jamono ji ñu ñuy wax yi mooy ñu sàggan ñooñu nga xamante ne diine ji daanaka ñoru leen par par loo seen tariix yi bokk rek leen ñor jamono ji ñi ñuy wax suufiyee yi mooy ñi nga xamante ne lépp loo xamante ne xeetu caaxaan la lu lislaam di bañ ñoom garaawaluñ ko jamono ji ñi ñuy wax suufiyee yi mooy ñi nga xamante ne booy wax na ak yu ca jëm maanaam dangay mel ni ku leen di ngàññ ba buñ gisee kenn ci seen moroom yi muy doxal na sax dañ naan ko xanaa yow bu doo taalibe bi bokk ci suñu mbooloo yi kooku jamono ji tey caaxaankat yooyu la ñuy wax sun su suufi yi waaye xoolal kii ñi mu wax suufi yi mu ne mooy ñi nga xam ne ñooy ñu dëddu àdduna yi sell yooyu nga xamante ne dañoo xool bu baax a baax a baax ñu jubal bu baax ci li ñu xool ñu yem ca ñu daal di xool lan mooy xabaar yi tukkee ci alquran ak sunna ñu settantal ko jële ci ay jàngat yu rëy ñu daal di gërëm lool ci lépp lu yàlla dogal ci ñoom ñu doy lool lool ci li nga xam ne moom la yàlla yombalal jàppandal jàppandalal leen ñu xam ne lépp loo xamante ne dafa aju ci dégg-dégg ak gis-gis ak ci xool bi yëpp dinañ leen ko laaj ci lan mooy li baax ci li ñu gis ak liñ doon dégg ak li ñu fas seen xol ak liñ doon jàpp ak lan mooy li ci bon ñooñu mooy ñi nga xamante ne euh, xam nañ ne lépp lu nekk danañ leen ci euh, caytu ci tegal leen ko balance ñu xool maanaam li gën a néew maanaam ba tolloog atom sax dinañ leen ko dinañ ko caytu ci seeni mbir maanaam ñoom nag ñoom ñooy ñi nga xam ne dañoo waajal gën gi xeeti rafetunu waajal ngir jëm ci ëllëg bés bi nga xam ne mooy bésub rendez-vous bu mag ba ñooñu day seen kàddu day daw ci yooni di jàngat ak di junj di wax wax ju leer ak di waaye lépp day dëppoo ak melo ñi nga xamante ne ñoom ñooy dëgg dëgg ñi nga xamante ne xadiisu yenent bi sallallahu alayhi wasallam la ñuy teg seen lépp ñooñu day bokkuñu ak ñi nga xamante ne ak ñu wuuteeg ñi nga xamante ne dañuy jënd waxu caaxaan maanaam jël caaxaan ak ay waxu caaxaan ak ay mboosóor di ko teg seen kanam ñooñu du ñu jëf mukk lu baax ngir ngistal te duñu ko bàyyi mukk duñu bàyyi mukk lu baax ngir am kersa ngir bañ ku leen ŋàññe ñooñu seen diine li ñuy doxal seen adduna yëpp mi ngi tegu ci wiital yàlla ak dàqal ko lépp loo xam ne dana tax ñu koy nuróol ak di ko dendale képp kenn ci mbindeef yi ak lépp lenn ci mbindeef yi ñooñu seen gis-gis mooy wéer jël seen lépp delloowaat ko yàlla ba pare wéeru ci moom ak wommatu ak ni nga xam ne ci moom ak it maanaam jébbalu ci mboolem li nga xam ne ay ndigalam lañ ba pare ñooñu day seen gis-gisit mooy dañuy doylu ci li leen yàlla wërsëgal waaye ñu dummóoyu ci lépp loo xamante ne dana tax ñuy mën a gaaral ci kanamu yàlla ak di di di am lenn lu ñuy xalaat di ko diingat ci li aju ci borom bi subhaanahu mu daal di indi ab aaya jeexale ko mooy ne lii de ngëneelug yàlla la moo koy jox ku ko neex yàlla na boobu mooy borom ngëneel gu màgg gi waaw ñii ñii ñu tudd nii ñii buñ dul ahlu sunna waaw ñii bu buñ dul ñi gën a sell ci nit ñi ñii buñ dul ñi gën a baax ci nit ñi ñan ñoo ci bokk ñii nag jarul ñu ñuy développer seeni mbir naan suuf yi ay ashari lañ ak i maturidi <laughs> ak ñu jarul jarul ñu koy développer gisoon nañ ko ndax ñu bokk ci tariqa yi yëpp te ñu tegu ci sunna laa wax nag tariqa yu baax tegu ci sunna ñëpp jarul ñuy développer seeni mbir maanaam leer na leeraay goo xamante ne du jar ñu fi polémique d'ailleurs ñeneen ñi nga xamante ne dañuy jam waa tariqa yi ñoom d'accord ñoom d'accord nañ ni ñooñu ay la lañ. ay ashari lan pass pass bobu lañ amé ñom d'accord lañ ko lenen kay lañuy lañuy wax comme que mbir momu d'accord na lerr na manam jarul ñuy développer fofu de ngeen insha allah mun wasfun fu sabi'u minhum qawmun murabituuna fi suhuuri almuslimina fi wujuhi alkafarat yujahiduuna aada almuslimina wa yaxmuuna xima almuslimina wa yadub wa yadubuuna an harimihim wa diyarihim ويظهرون في ظهورهم مذاهب أهل السنة والجماعة وهم الذين أنزل الله تعالى فيهم قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين من ne زاد الله توفيقا بفضله زادهم الله توفيقا بفضله ومنه من allahu جروب بنك moom ñoom ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñooñu la ñuy wax euh, mooy mooy euh, muraabituuna yi nga xamante ne ñoom ñooy xeex ci yoonu yàlla maanaam ñooñu ñooy ñi nga xamante ne ñooy wommat nit ñi maanaam ñoom ñooy xeex di dugal nit ñi ci lislaam euh, di xeex ci jullit ñi maanaam ànd ak jullit ñi di xeex ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéefir ñooñu nag. Euh, ñoom de dañuy xeex noonu yu jullit ñi ñoom dañuy aar ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ñoom dañuy jañ ñi nga xam ne ñoom ñooy maanaam képp koo xamante ne dafay bëgg di euh, di di di xaw wi suturay jullit ñi maanaam seen i xaraam ci maanaam nga xam dañ koo ormal ñoom ñoom ñooy feeñal tamit maanaam ci seen xeex yi ñuy xeex maanaam ngir lislaam jëm kanam ñoom ñooy euh, ñoom ñooy Euh, euh, ñoom ñooy ñi nga xamante ne euh, dañuy aar maanaam dañuy feeñal maanaam li nga xam ne mooy mazhabu ahlu sunnati wal jamaa <coughs> te ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom la yàlla borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce ci ñoom ne ñi nga xamante ne walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin ñi nga xamante ñoom ñooy kër kër yi ci suñu yoon di xeex ci suñu yoon ñooñu day lanahdiyannahum subulana giñ naa ne dinañu leen gindi ci suñu yoon yi wa inna allaha la ma al naka buur yàlla day subhanahu wa taala eh, moom mi ngi ànd ak eh, la ma al muhsinin mi ngi ànd ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, ñiy rafetal ñooñu nag itam tey buñ leen xoolee mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo euh, xeex tey buñ seetloo ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo yanu euh, gàd euh, jihaad bi di xeex ak nit ñi te teg ko ci yoon xeex ak ñëpp ñu nga xam ne ay yéefar lañ te teg ko ci yoon ba lislaam ko tey ni mu yëkkati yëkkatikoo ñooñu ñoom ñooy ñoom tamit waa ahlu sunna lañ maanaam ay ashaira lañ <coughs> tey léegi nañu xool Euh, mooy bu ñu jëlee rek tey bu ñu jëlee rek tey ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa junjoon ci anam gu leer a leer a leer ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy ubbi Constantinople yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne euh, la taftahanna al Constantiniya فلن لتستف لتفتحن القسطنطينيه فلن يعمل امير اميرها ولن يعمل جيش ذلك الجيش أه، حديث بو امام احمد بن حنبل صلى الله كم نكو غيسيون اك امام ابن خزيمه امام البزار امام الطبراني امام الحاكم امام البخاري واي تاريخ الكبير لكو صلو ا أه، ني <coughs> قسطنطينيه نوبل دي دي نكو اوبي واي اسكي نجيت كلين دي جيتي waaye tamit ci boobu armée armée bu baax a ngoog te ñooñu nag sikk nekkul ci ni ay maanaam ni maanaam kon waa ahlu sunna lañ parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam du tàgg waa ahlul bidaa te du pou leen pou këriwoo maanaam Muhammad Fatih boobu euh, rahimahullah nga xamante ne moom moo ko ubbi kooku ci dawlatul osmaniya la bokk te moom mi jiite mbir mi rahimahu llahu taala maanaam moom Maturidi la Maturidi la ci pas-pas maanaam mooy waa ahlu sunna te bu ñu xoolee ñi nga xamante ne tamit ñoom tey maam ñu ràññeeku lañ comme ku mel ne al imam Salahuddin al Ayyubi ashari la ku mel ne al Malikul Muzaffar ashari la ku melni Omar Muxtaar Ash'ari la nga xamantene sax dafa bok sax ci Sanusiya wa Sanusiya hmm tariqa Sanusiya ku melni euh an-Nursi rahimahullahu ta'ala nga xamantene mom moy ki yeesalat l'islam ci Turki hmm muy soufi bu mak bobu sanu Ash'ari la ku melni ni Izzuddin al-Qassam rahimahullahu ta'ala ci nga xam ne moom ci suufi yu ma yi la bokk te d'ailleurs euh, tijaan yi la kooku ci tariqa tijaan la bokk nga xamante ne moom moo créé euh, Hamas xam nga kooku achar la ak ñeneen ak ñeneen maanaam te sax ñii dañ leen a tudd rek parce que ñooy ñi gën a siiw Cheikh Omar al Fuuti yu achar yi la hmm? bu ñëwee suñu réew yi rek alqaadi ma jaxate kala ashari la euh, euh, li ma bëgg a wax euh, keneen ki ci des laa bëgg wax ki ki borom xeex bi jàmbaar bi mufassir bi tafsir tafsir subhanallah tafsir mooy ma Jaxu Ba rahimahullah ashari la ñi xeexal l'islam ci suñu réew yi asaira nonu la deme nak rew yëpp ay asaira lañ manam kon jaru ñuy guddal ci ñooñu noonu mu ne nag maanaam ñoo ñooy juróom-ñaareelu kuréel gi mu ñëw ci juroom ñettel bi mune ne fu saaminu minhum amatul buldan allati ghalaba fiha shi'aru ahlu sunnati duna amatul buqaa allati dhahara fiha shi'aru ahli al ahwaa'i dalla وإنما أردنا بهذا الصنف من العامة الذين اعتقدوا تصويب علماء السنة والجماعة في أبواب العدل والتوحيد والوعد والوعيد ورجعوا إليهم في معالم دينهم وقلدوهم في فروع الحلال والحرام ولم يعتقدوا شيئا من بدع أهل الأهواء الضالة وهؤلاء هم الذين سمتهم الصوفية حشو الجنة فهؤلاء أصناف أهل السنة والجماعة ومجموع أصحاب الدين القويم والصراط المستقيم ثبتهم الله تعالى بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إنه بالإجابة جدير وعليها قدير كون لولو موموي ني مو جيخال مانام ني جيخال موي وا دكي ييب رك دكي الاسلام ييغا خامتاني ماندارغي اهل السنه ولا جماعه داف فين تي تي بون خوله تي adduna bi ni mu toll euh, boo jëlee li ko dalee Sénégal Mauritanie nga wàcc Guinée euh, noonu nga ñëw Côte d'Ivoire ci yenn dëkk yi ak ñoom Cameroun Nigéria euh, te jullit ñu bëri foofu nga gis nga couloir boobu soo ko jëlee ba Maroc ci kaw nga jël couloir boobu dema dema dema dem di nga dem ba daanaka bay waaj a yegg siin foofu yëpp ay dëkki jullit la mais couloir boobu yëpp boo ci xoolee ñi nga xamante ne fii maanaam euh, seen boroom xam-xam yi ci mboolem jamono yi da ngay gis ne ñoom ñëpp ay ashari lañ ak maturidi xataa ba ci Iran ak Irak ak Liban nga xamante ne chiites yi foofu lañ ëppee doole maanaam mais da ngay gis ne li ëpp ci réewu jullit ñi ay lan lan ay ashari lañ ay waa ahlu sunna lañ walillahi alhamdu wal te loolu nag mu dëppoog li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ñoom ñooy as-sawaadul a'zam ñoom ñooy kuréel gu mag gi mu tuddee leen aljamaa mbooloo mi léegi yow soo toogee ba heure bu la neex nga ni ñooñu ñëpp ci caaxaan lañ nekkoon yow kuñ tudd Izzuddin ibn Abdussalam Abdussalam nga ne noo ku baax la woon mais sauf que ashari yi dafa am mazhab ashari yi bu dugg ko dugg nga ni imam an-Nawawi nga ni moom ku màgg la ku baax la nangam nangam mais c'est que euh, pas-pas ashari bi mu am xam nga rek jamonoom mais jamono mooy ban jamono mooy jamono yi nga xamante ne xam-xam dafa yaatu. kok bu nekkee njitu imam wa jamonom te jamonom nek jamono yi nga xam xam-xam dañoo yaatu nga ni pas-pas bi mu am moko moko yakal imam at-Tahawi nga ni moom sax munu ñu ko ngagne tor parce que imam tahawi mom neexu ta ngagne ndax da ngay tuumal sa bop ci lo xamantene kenn mënu lu tula ci setal waye fan nga jëm lan lan moy moy problème bi. woy euh, mi am na ci ay yenn phrase yoo xamante ne phrase bidaa la yooyu lool kay moom mooy nitu bidaa la <laughs> loolu kay mooy nitu bidaa la te loolu euh, nga ni ko te ku tudd rek il faut que nga ni pas-pas bi dëgëru doy léegi kan la pas-pasam baax kan la pas-pasam dëppoo ahlu sunna wal jamaa amoo kenn koo mën a tudd yow ku ñu mën a puukarewoo xanaa nga wax al imam ibnu taymiya al imam ibnu qayyim ak ñu mel ñoom te bëriwuñ moo tax suñuy tudd ñoom dañ naan waa ahlu sunna lii lañ jàpp mais léeg-léeg maanaam nga gis ni masalan salafiyé yi am nañu lool problème ci mën a jàng seen xam-xam ci ñu bokkut ak waa ahlu sunnat maanaam te moom mooy ashari yi ak maturidi yi xam-xamu l'islam bi yëpp génération yëpp ñoom ñoo ko téye mooy waa ahlu sunnat jamaa ñoom mënuñoo jàng lenn moo tax tiir yi ñuy jàng yëpp boo ci génnee téere yi Muhammad ibn Abdul Wahhab yi ak Muhammad ibn ak ak ak téere yi Ibnu Taymiyya yi ak ñi nga xam ne ñooy seen taalibe yu mujj yi mooy taalibe Ibnu Abdul Wahhab yu mujj yi soo leen ci génnewee salafiyé amul xam-xam buñ la mën a jàngal bu fekkente ne lu dul ne dañ koy sukkandikoo ci téere yi nitu bidaa yi amul beneen téere buñ mën a sukkandikoo tafsir mënulu ci limal benn tafsir lu dul ne tafsir boobu ñu ko bind waa ahlu sunna lañ te ñoom ñooñu la ñuy wax ne ay nitu daa lañ kon nañ xoolaat mbir mi maanaam lii mooy défi bi ñu di bi leen di lancer ñun déjà muy premier défi bi ñuy lancer ci suñu njàng mi mooy bu dee am na ñeneen ñuy ahlu sunna wal jamaa te ñoom ñu am ko nañ ñu koy indil ñii ñooy ahlu sunnati wal jamaa bu fekkente ne ñii duñ ahlu sunna wal jamaa nag sincèrement kon yenent bi saa sam li mu waxoon ne mbooloo mi gën a bari ci biir jullit ñi ñoom la te mu jublu ci boroom xam-xam yu mag yi mbooloo ma bu fekkente ne ñoom ñëpp ay nitu bidaa te yow mënoo maa limal lu dul ñu néew xaqiqatan kon sëriñ bi loolu yanawul maanaam yàlla ñu yàlla sàmm yàlla ñu yàlla sàmm yàlla ñu yàlla sàmm kon incha allah jotaay bii di ñëw dinañu gis. ñi nga xam ne ñoom ñooy ñaari imam yu mag yooyu abul hasan euh, al ashari ak abu mansur al maturidi rahmatullah alayhim a radiya anhuma maanaam dinañ gis seen tarjuma ci lu gaaw seen biographie bu ko defee ñu xam ñooñu ñooy ñan ndax kat bu dee ñooñu la ñëpp topp ci pas-pas ba xoolal sax imam ibnu ashir rahimahullah fi aqdi malik la wax no fi aqdi al ashari wa fiqhi malik wa fi tariqatil Junayd Salik sama téere bii maa ngi ko bind ci pas-pasu Ash'ari ci fiqu imam Malik ak ci yoonu imam Junayd ci tariqa ci yoonu soobu ci yàlla waaw maanaam bu dee ñii jàng xam-xam ñëpp xam-xam bi yàlla jaarelewu ko lu dul ci kanaal boobu sëriñ bi c'est parce que kanaal boobu mooy canal bi nga xam ne mooy xam-xam bu wóor bi bu leer bi bu wér bi voilà waxuñu nag ne euh, kenn dafa mucc ci di juum ci ni muy waxee wala donte ci buntu pas-pas la maanaam mais nag dañ naan njuumte yooyu ay njuumte lay doon yoo xam ne maanaam du dugg ci cosaanu pas-pas bi loolu lañ wax mais waxuñu ne kenn du juum et ay malaaka lanu déedéet duñ ay yenent tamit alayhum salaatu wasalaam duñ ay yenent maanaam dinañu juum wala léeg-léeg ñu gisee noo xam ne du noonu waaye nag fi leen yàlla teg ak yëkkati gi nga xamante ne moom la lislaam yëkkatiku ci seen tur ak doxal gi nga xam ne moom lañ doxalee lislaam ba génnee ko ba wane ko ba teg ko ba doxal li nga xam ne mooy diine lislaam ji ba mu yegg si fii mu yegg xam-xam bi ci mboolem domaine yi borom bi subhaanahu wa tàggat leen ah wax dëgg yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na yaxmilu haadal ilma min kulli xalafin wadulo xam-xam bi génération bu ne ñu ci gën a maandulaw yàlla tànn di leen ko jox te it gis nañu yàlla ñoom ñii la ko jox ci génération yëpp te képp ku bokkul ci ñoom li ñu seetlu mooy ne sa xam-xam du am barke du traverser siècle yi du traverser génération yi du traverser jamono yi ñii ñu tudd ñëpp nag mooy ñi nga xam ne seen xam-xam yàlla da koo tasaare ngir seen barke ngir tamit ne dëgg-dëgg leer gi nga xam ne moo ci nekk te leer googu dafa sori bidaa lii lañ wax waaye ndax imam diw su euh, ki nga xam ne cheikh la diw ci biir masala sàngam am na ci lu mu ci wax te loolu mën nañ koo xoolaat ak yu noonu loolu moom du mooy problème bi mais nag ndax nit lañ tamit loolu du information diw sàngam imam bu mag la sëriñ bu mag la borom xam bu mag la waaye dafa juum ci masala sàngam ak sàngam loolu du information liñ ma bëgg wax ci loolu mooy kooku nit la te nit lañ nag waaye nag bu ñu xoolee globalité bi da gis ne ñoom ñëpp waa ahlu sunna lañ kon loolu moom mooy li nga xam ne moom lu mat a leeral alhamdulillah wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala wa